yoro abdul ah nañu santaat yàlla suñu borom bu baax a baax yàlla mi nga xam ni moom moo ñu may ñu fekkee ren mm-hmm. yal nañu yàlla may ñu fekkee wat kay at yu bëree bëri ndax événement yu mel nii mm-hmm. ku ci nekk rek bëgg nga di ko fekkee am na ñu fi fekkoon daaw mm-hmm. ren am na ñu fi fekkul kon yal nañu yàlla may ñu koy yàgg di ko fekkee ya beneen bi ci des nag abdul yaakaar naa ni Yacine am na lu ma ko joxoon na indi mu jox la ko. wallaahi wallaahi jox na ma teraanga bu yaatu sax di la ñaanal yow aussi li ci des yàlla na ci yàlla def barke ndax teraanga yi yaatul na torop dëgg yàlla kontaan naa ci yéen. yow yaa ko moom bi ci des nag mooy xees bi mu la jox. juróom benn fukki junni. ñaar fukki yi boo yeggee kër ga. Mm-hmm. nga joxal ma ko soxna si. incha allahu bi dina jot. ñeent fukki yi nag. moy khalisu kharmi fanwer fukki ci dess nak mm-hmm. ya ko mom kharmi nak xamna xam ne ëpp na ñen fukki junni. mais da nga bax rek ndeysaan yaa ma gën a baax wallaahi. yaa ma yere bi nak yaakar na ni ko téyër bi ñewé bax na. wallahi rafet na bima ko solé dama melni tangal wallahi rafet na torop wallahi lool rek la bu ngeen kontaan. yero yow mom xamna naa du ma wax. waaw bul wax di bul wo sa yaay di wax mom moy wo sa wo wo bu bul wax. Eh, sama njëkk bi ñaar fukki junni mi dama koy wo wax ko. loo ciy wax. xam nga lii moo taxoon ñu doon xuloo te xuloo boobu laa nar nam ma nag ak ak yére bii tamit yëpp ñëw na wax dëgg yàlla jar jof tan kaaw leen xam naa ko ci yaasin yaram mi bis bu yeggee fuuta yërëm bi ni ko téer bi ñawee <laughs> ci kaw lay nekk wallaay bu ko solee xam naa ni ñëpp moom la toog kii tiit ma ne Bardé nag fexeel nag bi yoon nag boo yeggee nag na nga takk jabar. Ah, surtout jot na nag. surtout jot ma nag. gisagul jigéen bu ma attan. loolu mooy problème dam eh, nay jigéen nag rek leen. Eh, comme man kalal bi moo la ëpp. boofu moo la ëpp amoon na sax. Ah. kon noonu góor du dënn bu rëy de. waaw waaye noonu góor nekkul dënn bu rëy de. rek ñu sot ñu sot ko rek ñu def ko. man te fu ma takkee jabar valise ah. ah. Ah, maa bis boo defee valise. Abdoul mii dinaa ko wane ko. Hmm. na ma xoolal nag. su mu gën a seeree ma jënd jox ko. eh takk waaw waaw dem leen baa ñuy def. <laughs> ah kon jéeg boobaa boo ñëwaatee Dakar si rondal yi ngay fa. <laughs> ma rey la giji giji giji balaa ngay ñëwaat day fekk ma yokk nekk ci kaw. ndax xam naa ne yow moom gis boo amee soxna boo ñëwaatee fii sa néeg doon nangu kenn dugg ci defee Abdou bu ñëwee bu suma cooro bi may labat fii nii dama koy mën a matali xam nga léeg-léeg ma ay affaire ci koñ damay mujj kam naa matali waale ko de eh, defee kër gi seen kër la waaw defal ma ñaan parce si orière bi laa bugg dem ngoon mm-hmm. léegi xam naa dix-neuf damay dem garage fekk leen foofu waaw takka naa sama maa ngi nekk di takka bagage yi ak sërce yi ci xam naa boobu daal laay munu dem daal hmm. waaw waaw baa woo nga Ablaye rek hmm? baa woo nga ko waaw woow naa ci kanam parce que man dama sob si yoon danga denc ko waaw xool xaj yi robb yi mbaam yi hmm. ak garab yi dakkante yi. ndeysaan <laughs> dama nekk si oto waaye leen di dinaa la ko ci xamal nag comme que yow moom xam nga ni Ndakaaru fii moom lenn rek nga mën eh, jox ma sama bëccëg ñaar fukk jox ma ñeent fukk. Ah. yow moom doo def ñaan. waaw dégg nga sa jàng soriwul bàyyil Abdul rek def ñaan su ko defee <laughs> yàlla teg leen ci yoonu jàmm. Eh, mun naa ko de guddi bi. salaamaaleykum moo xadi woo dara du nelaw alhamdulilah bëggoon bëgg rek mu tëdd rek ma taal rek <laughs> neen ka jaa neen ka sa doom jaa ngay toj ci kaw sa doom maa nga ma ngay réjji réjji range gi kontaan ma ngay tëb di daal mosumaa gis lii bilaay li olof naan lu waay muñ ci àdduna mu jeex ndeke nguuru yàlla rek a dul jeex kese ma ngay tëb di daal ma ne la muusu kër gi sax nag ku ci dajeel na la baal ma àq nga ni wóor na mu ko mujjee yërëm ku mu dajeel nijaay ji nag da koy fekk ba ca biir waañ ba muy defar café nijaay baal ma àq damay ree bay bëgg a ay man yoro doy waar la def doy waar. wante nak lepp yow la gis nga ni mu mel noonu loolu rek moo ko may chance. billahi wante yow kenn du yow kenn du yow jeeg bu jigéen ñëpp meloon ni yow billahi kër yi du am problème ndax góor dem di uti rek la am. jigéen moo nekk ci kër mooy defar kër. te yow yàqoo dara parce que yow suñu mbokk yépp képp fa muñ mus a ñëw supporté nga ko suñu muus ci kër gi sax dëkkandoo yi waxuma seeni wax yow yàlla rek lañ lay bàyyeel ak borom baar mi kenn gënu la yow moom moom mention spécial kontaan ci yow rek yow yaa xam nag loo bëgg suñu ëtt bi yàlla ko suñu borom defal ñu ngi lay massa bu coono di di la baalu àq dina ma wéetal nag dina ma wéetal de dina moo doon waxtaan ak kër gi. xuloo chaque jour kay. ma ne la télécommande bi sax moo sama nijaay dañ koy xeex. wante xoolal day dose sa nijaay dong ak di ko siis. yow kii ak sama nijaay toj nañu kër gi. <laughs> dañuy yendoo xuloo xeex mu jóge booleetuma leen yow kii moo sama nijaay toj nañ kër gi kii xeex buñ fi xe ma ne la damaa mujj gi suñuy jàppante damay mel ku leen yëgul parce que man dama ne duñ ma rey stress lañ ma mujjee teg. ñoo koy xam nga bu ba man fee ma tëdd ci saal bi du ma leen sa lijjanti. boo buggee da ngaa sonn. dama leen di bàyyi foofu ñu wax bu jékki-jékki ñëw na sa nijaay lii man ko waa baax na du mën ngeen ko rek ay ca man damaa pare pare naa maa ngi nii orière bu di wentoor bi eh, léegi nag hmm. gis nga gis nga west bi west hmm. bi man maa la ko jokk wallaay suwey niir waaw sa pour sa kotool Fuuta dafa tàng tàngee nga simmee kooku rek nga ma koy koole mu def ni nit mu def gilli suma diggante ak yow déedéet loolu du ma ko nangu teyal nekk jaam bi ñoo bokk déedéet boo ko nangu wee rek mu defal teraanga ndax teraanga kenn du ko diri dañ koy yenu te teraanga du tuuti de xam nga lii mën nga am lu ko ëpp yor nga kaalis kon lii teraanga la rek sesti lii tubaab naan sesti lii sesta la rek sesta la waaye mënuma ko mënuma ko xam nga lu tax sama kol bi sama kol bi moo commencé jeex ndax yow Abdoul su ma fàttalikoo. bul fàttaliku dara boo fàttalikoo rek dangay sokoor sunu papa eh. Ismaïla loolu sax wax nag. li ma la def si néeg bi yëpp katal la fi taal kiling bi pour yëpp nga bañ man sax ñemewuma kiling. waaye yooyu yëpp damay jéem a nekk fii di la bousculation saag naa la keeg nañu. fu ma takk tàkk na mu tàkka ci man tàkk na loolu mu tàkka ci man. yaa ma gën amul benn problème loolu du dara fàtteel loolu. li ñuy dunda ci kanam moo dàq. Hmm? gis nga kàcc li muy windeel geenam googu lépp mooy ku kamul kamoore lu romb nañ ko bàyyi mu jàll. Hmm? bul jo man duma gis kuy jooy nag di boo jooyee fi du bi suma jooy du jeex kam nga man bu ma jooyee kaw ma luy nopp kaw abdul sax laa lay wax déet wax ma abdul rek nag wax ma abdul anne déedéet ay bul ma wax kaaw yow benn famille amuñ benn problème des fois ni ma dugalal la ko fii nga koy féeki loolu rek lii du problème hmm? bu ma jooyee di nga bugg a noppi du ma noppi de bàyyil jooy bi eh. sama kol moo jég sama kol bi kol bi bu ma dega di bu ma naa kol bi ngay def dégaral tuuti naa jàppale ma walis bii ma yenu ko jàppale ma walis bàyyil jooy bi tamit yar dinaa ñëw ba daara seet defal loolu ma gën a baax bu defee lu ma ginaar eh, defal lu ma ginaar ba mu tul ñëw daara seet si la loolu eh, la wakk baax na oh, tàggu naa leen néeg bi mm-hmm. sakket bi tàggu naa ko waaw kiling kiling tàggu la ñi ci des dinaa leen tàggu walis bi dafa diis nag ñi ci des maa leen di tàggu ñi des maa leen di tàggu demal ma bul tagaw fii nag walis bi def dix yar ñeneen ñi naa leen tàggu